dañ koy daal dal euh, Maître El Hadji Diouf euh, def maa leen di nuyu di sant di ñaan yàlla yàlla kii di am mbégte ak kontaante di ñaan sunu borom subhaana wa suba hmm? insha allah hmm? euh, yàlla may ma ndam waaw ñaan yàlla may ñu ndam man ku muy may ndam maanaam naa ndam ma di ñaan yàlla di ko ñaanal moom Ousmane Sonko wér ak gudd fan <laughs> ba mu fekke bi ba ñëw waaw ma ne ma ñaanal yàlla may ñu ñu dem. Mhm. Euh, ngay préparer suba incha allah. waaw nañ préparation bi dañ bëgg nga wax ñu ko nag. aji préparer na jënd na robe bu rouge. waaw wuy ma xanaa robe bu rouge. <laughs> mais la point faible dañu xamoon ni du ñëw moo tax mu sol. robe mais damay ruus. dëgg waay nee naa heure bi na centre parce que gis nga ko bii passé. na ko def di ñëwee ni mu solo. gis nga lépp jekk macha allah. xëcc bi aj ko. nuyoo. macha allah nuyoo jaagar jaagar gis jaagar jaagar yi nee naa ko booy dox ci kii bi mi ngi jàng ni muy doxee. mi dalaas see dem dalaas ñëw romb Ousmane ne ko Ouz sukk. jóg dox ñaari paa. macha allah Ousmane Sonko dina ñëw. moo ñëw bu moom préparé naa aji. léegi nag yow lan nga wax ni ko aji moom ngay def na jug jàggar jàggar sa robe rouge bu ko romee ni ko Ousmane Sonko yam ah, bu gàtt parce que il faut perturber tribunal nee naa ko robe rouge nag. yow tribunal yow tribunal bu boo ah, ko bu boo ko perturber comme yow Ousmane robe rouge du fa dugg mais xam nga li muy sax dafa aj da ngay takk seer bi mais na yoram ok rek wa xaw koo waddal mel ni lu ci dëgg. préparé pour gagner. <laughs> loolu dafa tax mu gagner. Ah. pour gagner pour pour gagner procès bi seen gàcce national la pour gagner procès bi incha allah. bu rouge bi pour gagner. écran bi moom préparé nañ. ba écran pour lan la noonu ñu laspeer écran bi. am na ñaari boo yoo xam ne ñoo war a yor laspeer yi dinañ nga xam ne bu ñu tegee rek bu ñu neexul rek ñu dóor ci laspeer. léegi ah écran bi écran bi kon yow indi wóoree ko ñoom ñoo indi ay kii pour. ñoom ñoo ay yooyu. waaw eh, incha allah pour écran bi. Ah. yàq ko pour bi kenn mais imaginaire yéen bu bu Ousmane ñëwee gaña la yow nan nga a def au jour bu suba. am ah, ah parce que euh, nit la nit la kii la rek àdduna noonu vice versa la ah la vice waaw vice versa la jënd nañ <laughs> bi dafa war a yëngu boobu dafa war a yëngu aji bu ko defee ko defee aj aji buy dox naan ka cinq cinq réel léegi wax nga ko sobo bi bu bu gudd. macha allah mi ngi sobo war a sol. boo xam ne mooy ànd ak rouge danger bu blonde bi baax na wala conseil sobo sobo yow. blonde wala euh, de blonde blonde day fay. de blonde bi. blonde bi day fay. boole ko rouge. mais mais mais mais El wax ko ni ko bu mu ko gàttal ndax bu gàtt baaxul. waaw na def bu gudd ba pare ba pare na gën a mule gën ah. nee nga dina tax day takk ay fer fer yaa ko koy jox ah, ah, yaa ko jox fer ande man asmas ñoo jàpp ci combat bi di gërëm marché aslem jàpp nañ ci bu baax a baax jaaykatu fer yi macha allah nga xam ni ñu jàpp ci combat bi parce que combat bi dañ ko war a daan nag aji nag dafa war a ñëw nag daa di wis ay te aji nee naa ko booy ñëw da ngay yor ñaari poto cuuraay jax ci tribunal bi mu léegi xanaa bu neex. léegi bi loxantu. léegi Sénégal kon léegi euh, Me El Hadji bu la déggee kon da ngaa bëgg a euh, moom dafa war a bàyyi ba Ousmane toog ah. moom mu doog dugg si. doog a si. ah loolu mooy a njëkk a dugg ci ci ci temps bi ñu léegi bu fekkee bu dugg see. waaw après a ñëw. léegi bu fekkee Ousmane nag moo leen fa jiitu bu fekkee yéen a fa jiitu Ousmane nag nan lay demee. Ah, ay jógaat. def na nag ay <laughs> yow seet nga ci yàlla